man maa ci wax jox ma tuuti ma maam Abba la. maa leen nuyu yëpp di leen gërëm. di leen sant moom waru cee wax man maa ciy wax. comprendre nga moom champion la. def na fi lu ne ndaanaan la këpp na fi ay reeru jàmbur ba tay combat bi dafa métti gis nga tey Reug Reug su pourfait wu guy gi du ba rek moom ndax guy gi moo ko daw ci lamb li guy gi fayeeku Reug Reug fayeekoo ko comprendre ñuy wax combat di ko dox comprendre nga léegi après jubawul ko Malick Gakou ne ko jëlal combat bi naa la jox 5 millions te Malick Gakou kilifa la biir géejawaay te nit da ngay sàmm sa kàddu. su fekkee tey da ngaa bëgg ñu naw la ñu respecté la da ngay sàmm sa kàddu 5 millions yooyu mu ko digoon na ko ko jox combat bi dafa yàgg dafa metti te làmb dafa metti oh. li ma ko wax na ko jox 5 millions yi na ko jox bis bu ko joxul nag du baax na ko jox làmb dafa metti su ne li muy wax dëgg la ci moom doomu géej waay la daa bëgg dara géej waay na ko jox 5 millions yi da ko làmb daa metti